salaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu ah, mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñu ngi ñu nuyu ku si nekk sa tur ak sa sant eh, di ñaanal suñu jëwriñ sëriñ Mamadou Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool tànt ak wér ak jëwriñ yi nekk si eh, njabootu sëriñ Touba yëpp rek ñu ñaan ku si nekk suñu borom yàggal def te nga wér lool di ñaan tamit sañ Afia Bousso. suñu borom yàgg fi te lu wér lool ak ñu mu ànd liggéey bi yëpp ak Cheikh Khadim waaw man nag tey maa teewloon confédération daayira Belgique Hollande euh, ak euh, ak France ñëwoon fii si jumaay Touba indoon addiye daayira Muxaddamatul Xidma bi mu tolli woon si trois cent mille francs CFA. njëbal nañ ko sëñ suñu afiya maam si mbégte lool soññ si ñaan ñu si waaye tamit si samay sañ-sañi bopp maa ngi soññee mbokku taalibe yëpp ñi ngi xam ne ñoo nekk si diaspora bi dina wax ne leen ñëpp dégg nañ soññe bi nga xam ne ni sëñ sañ Diop soññe na ko si plateforme euh, Moukhaddamatoul Khidma bi jamonoy passé tamit am na keneen ko si toptal muy suñu jëwriñ Baye Abbas Dieye soññ bu am solo ba mu ne ko mbokk taalibe yi maa ngi soññ sama bopp di soññ mbokk taalibe ne leen liggéey bii xam ne nii moom la mbokk taalibe yooyu ñu ni comme sëñ Assane Diop te da si sonn maa ngi sàkku na si mbokk taalibe yëpp jàpp ndax jumaay Tuubaa bi fi ñëw ku ne xam ne liggéey bi fi nekk ah liggéey bi taalibe yi rek ñoo ko mën a doxal kon boog maa ngi soññ sama bopp di soññ sama mbokk taalibe yi nga xam ne ñoo nekk si diaspora bi bàyyiwuma kenn maa ngi leen soññ ñu dugal si seen loxo bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ñëpp dégg nañu weeru koor bu ñëwee lañ ciy dépensé par jour rawatina nga xam ne gàmm gi nga xam ne ñu ngi si ñu ngi koy ngi koy waajal si ay fan incha allah te jumaa ji ñëpp xam nañu ne ñu bëri si mbokk taal yi fii la ñuy fii la ñuy fii la ñuy gàmmoo te it ku ne ku ne gàmm ndax te xéewal yooyu yëpp tamit su ñun ñii taalibey sëñ Tuubaa yi ñoo ko war a fàggu kon boog maa ngi soñ soñ sama bopp ah di wax nag maa ngi jégalu nag bu baax si kàddu yi bu dëngee si man la bu jubee tamit jox nag àddee sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu aouzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen nuyu baax ci di jiital ci nuyoo bi sëriñ Tuubaa Cheikh Mamadul Muntaxa di ko ñaanal yàlla suñu borom yàggal ko fi loolu te ko ba li mu yéene liggéey Serigne Touba mu jëf ko te ànd ko ñun di ñu am ci ngërëmal Seexul Xadim yéen ñu nuyu ci turu Serigne Afia bu sa imam mi nga xam ne moo jiite daayira Muxaddamatul Xidma ak kilifay daayira Muxaddamatul Xidma yëpp rek ak membre yi waaye di leen nuyu ci turu commission sociale relation extérieure ñoom ñëpp ñu ngi nuyu seen tur di dalal tey jii nag ñenn ci jàmbaar yi nga xam ne dañoo nekk ci bitim réew te yàlla dogal ñu lëkkaloog daayira Muxaddamatul Xidma di jàpp ci liggéey bi tey ji sëriñ Ilimaan Wilaan di sunu mbokk di lépp ñëw fi ngir indi liggéey boo xam ne ñu ngi jógee ci fédération bu Belgique ak ak Sud ci noonu mu lima léegi ñooñu nga xam ne ñoo lëkkaloo ngir am yéene tàmbali jàpp ci liggéey bi ñu di leen dalal jàmm di leen tàllal loxo di sant di leen gërëm ci wuy si bi ngeen wuy si ci yéene ji daayira Moukhaddamatoul yéene yaatal liggéey bi ci àdduna bi yëpp ba taali bu nekk xam ne am nga ci sa wàll di leen xamal ne eh, daayira Moukhaddamatoul Khidma daayira la boo xam ne ñi ko téye dañ ko téyal ñëpp fu taali bu nekk rek gëmal na sa wàll ngi ci ndax kenn li mu li mu yore kenn ku ci nekk cib taalibe suñ ne la woon kaay ñu jox la nangam te nga bàyyi ñu ko doo nangu muy diggante jumaa ji fi nga xam ne fa la yaakaar nekk ak diggante muy armée lu njëkk yi fi ñu koy waaj margo bi ba ci penc mi ba ca Bàqin kenn ku nekk yàlla na yeex waaye foo man di nekk dib taalibe boo sañoon boo fa jógee ci mm, barab yi lañ lay andi kon nag barab boobe ko koy sàmm ku ne ki man tal war naa xam lu yéwénal tànn ga mu dugal ci loxoom kon ñu nuyu baax di leen sant di leen gërëm ci seen passif bu rafet bi ngeen yore ngir engagé yekk ci liggéey bi di leen soññi nag di soññi mbokki taalibe yi nekk ci gox yooyu yëpp rek ñoo xam ne liggéey bi dafa rëy dafa yaatu ndax liggéey bi at mépp la bis bu set ci bis yooyu nag waxtu nekk dafa am bis yoo xam ne dafa gën a yaatuwaat gën a rëyaat ci daayira bi loolu lu mel ni màggal Tuubaa ak gàmm ak koor ku ne xam ne loolu mooy liggéey bi gën a di ci daayira bi waaye tegtalu loolu doo ngay liggéey bi waaye bis yëpp waxtu nekk am na lu ñuy def ci dëkk bi ci ci jumaa ji ngir setal ko ngir taaral ko ngir war ko xet gu neex ngir entretien ko ci lépp loo xam ne yàqu na fi loolu lépp daayira Muxaddam moo koy def ak lépp loo xam ne dem nañ ba gis ne yàlloo na ci jumaa ji ñu tàllal ci loxo mbokki taalibe bi nekk ci réew mi ak yi nekk bitim réew noonu ñu koy defee nga xam ne waxtu nekk am na ci yoo xam ne daayira bi nekk bitim réew ñoom lañ ko mën nañ ci joxe yenn yoo xam ne danañ leen ñaanal ngeen dem ba egg ci yoo xam ne yéen a fi nekk ngeen def ko ndax fi ñu toll parasol yii ba dikkee daayira bee kuutloo daayira yu nekk siin ñu def ci liggéey bu rafet boo dikkoon tey jii ci biir jumaa ji da nga fi gis ay tepp yoo xam ne waa Espagne kuutoon mm, da nga gis ci kanam fu ñuy fóoti ay tepp yoo xam ne waa Italie kuutoon biir margo ba da nga fa gis lu ñu fa defaraat yoo xam ne waa France ko defoon mën naa ko topp noonu boo dikkoon ci ren jii nga xam ne diggante daaw ak ren nga xam ne daayira bi waxtu nekk bu ñu màggalee Touba ba noppi day tànn benn bis dalal ci ñi mu siqal liggéey bi te nekk ci diaspora bi seet yii bëgg-bëgg daayira bi ñu wax ko loolu nag xam nga bokk noo ñu ko waxee rek nga xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma dañoo baaxoo saa bu ñu màggalee Touba ba noppi ñu tànn bis boo xam ne dañ ciy dajale ñi nga xam ne ñoo siqal liggéey bi te nekk bitim réew bu yàggu rek def nañ ko taxawaay yu rafet daaw te defoon nañ ko xam nga daaw yooyu ci la ñuy gaaral yi nga xam ne la jumaa ji yitti wala daayira bi yitti ko ci yiñ ko dénk mu ci jumaa la wala bàq wala penc bi daa waxoon nañ fi forage boo xam ne day nekk ca bàq ba waa France tàmbali nañ ko ña nga ca ren ji waxoon na wax nañ am na ñuy wax yoo xam ne ñu ngi koy tàllal loxo ci mbokki taalibe bi yëpp loolu bokk na ci benn watab camion boo xam ne day jël mbalit mën a yóbbu bagage boo xam ne day féete ci jumaa ak benn wata ambilaas ak benn bâche bâche yi nga gis nii nga xam ne bii nga romb fii léegi rek man na cinquante mètres sur vingt ci fi ñu toll dañ koy luyee rek te yiñ ci soxla yëpp amaguñ ko ndax ku ne xam na ne fii li muy jël fa bari yooyu yëpp taalal loxo mbokki taalibe bi fu ñu mën di nekk rek ñu xam ne yi nekk ci barab bi li yàlla ci barab bi taalibe yi ñoo ko loolu nag kenn ku nekk bu ci jàppee kenn ku nekk am yiñ soxla nga am loo ci wut loolu dana yombal liggéey bi ba fi ñu ko xam ne daayira mu xam ne daayira boo xam ne day eh, créer ay nit di leen former tax na loolu daayira bi demoon na bu wut ay teere yoo xam ne ko di jënd ba am ko mm. fi mu bëgg na fa tabax fa ay bâtiment yoo xam ne mm. lépp la ju ci diine muy imaam muy nodd muy ji lépp mm. dañ leen fa mën a defal formation boo xam ne ku jàng ba noppi ñu formé la ca ba boo ëllëgee ku bëgg tànn wala nga am ku bëgg ko formé da nga fa mën a ñëw ñu formé la xam ne comme daayira bi moom mooy xolu daayira bokk bokk nga ci daayira tax nag waxtu wu nekk luñ ci nekk rek dañuy taalal loxo taalibe bi yëpp ñu mën di nekk ci àdduna ñoo xam ne jëf jii ñoo ñoom ñoo ko war a ànd kenn ku ci nekk loo ci gis ni yi ñu tudd loo ci war a mën a def la boo ko yëkkatee boo ñëwee boo ko boo ko yanoo daayira bi gunge la ca ba nga amal ko ñu xam ne réew sàngam wala nangam ñoo def nangam. kon nag ñu ngi ñu ngi tàllal loxo waa Belgique waa Hollande ak waa Sud France ko yëpp dina xam liggéey baa noonu lépp lu ngeen gis ba gis ne lu ngeen ci war a taxawee la. bu ngeen jokkoo ak ñun incha allah la cay ak yombal ngir la ko bëgg ñu am ko ci suñu wàll danañ ko def. ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla sunu borom defal leen xéewal defal leen barke defal leen musal leen ca ndog ya ak jafe-jafe yëpp ci bàkki sal xadim ci may leen xéewal yoo xam da ngeen ko mën def ci liggéey sal xadim bi e, ci yàggal fi Cheikh mu Mountakha ba li mu yéene ci liggéey bi mu yàggal ci bàkki sal xadim suñu limaan daal ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm e, jaadu na nag ndax setu borom saam mm, bu nekkee ci bitim réew di fa doon jëwriñ di liggéey liggéey bii ak borom saa ñu toog yoonu mu nit lu jaadu la kon nag ñu ngi lay bàyyi xel di la xam ne yaag teel bi dafa nekk yëpp lépp lu ngeen nekk rek daayira mu xadam xam ngi leen tàlloo di ànd ak yéen jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh